asalaamaaleykum mbokk yi fii ma nekk mooy le fleuve Sénégal waaye maa ngi fii ci Bakel te ku wax Bakel wax fleuve Sénégal nga wax intégration régional wax duggante boo xam ni réewu Sénégal duggante na ko ak réewu Afrique yi ndax Mauritanie moo nekk fii sama ginnaaw waaye boo jaaree ne la lële ngay seen ñoo ngi déjà ci Mali pour won la ni Sénégal mënul dem te àndul ak yeneen réewu CEDEAO yi moo tax dinañu def yitte bu baree baree bari ak pexe yu bari pour ñu renforcer l'intégration régionale ci biir CEDEAO libre circulation des marchandises et des personnes mu une réalité parlement CEDEAO am dinañ ko gën a kattanal le fi nga xam ne dinañ fa gën a def doole itam mooy li la véritable intégration des peuples parce que intégration bi ba que lu ci bëri da ngay le club des chefs d'État wala ñooñu ñooy jël ay décisions ci ñëpp mais intégration nit ñi parce que fii Bakel ak population yi Mauritanie ak de Mali, Mali ñëpp mbokk lañu les lañu intégration des peuples nag mooy ñu brassage culturel di demante ak di dikk ñu am lu ñuy wax le développement solidaire et le co-développement ñëpp ànd di di ko kenn du dem bàyyi sa morom ndax li tax integration am solo mbokk yi mooy Sénégal li muy defar ci suñuy usine li ci ëpp ñu ngi koy jaayi Mali Mali mooy suñu partenaire commercial bi gën a mag moo ëpp sax li ñuy jaayi bitim réew ay France ak yeneen kooku mënuloo ko caaxaane boo jëlee corridor Dakar ko loo ëpp junniy camion bis bu nekk dina ci jaar jëli ay marchandises port di ko yóbbul Mali

bis bu ñu demee ci li ñuy wax la zone de libre échange continentale ZLECAf bi nga xamni Afrique koy bokk mu ëpp un milliard deux millions d'habitants. bu boba marché bi ngay am kenn xamul nu muy toll kon ay grande entreprise sénégalaise yu sénégalais yi mom ñom ñoo nek, ñu fexé ba sénégalais yi nek ay champion industriel Sénégal amna le lépp pour développer dara manké wu fi li fi manké won may ay njit yu bax yu yërem askan wi yu responsable ngir ñew nit ñu bax ñi di liggéey di sonn xam seeni jafé jafe xam seeni choono ñëw jàppale leen pour que ñoom itam ñu développé wu loolu mooy yéene bi nga xam ne am nañ ci ci Sénégal te incha allah bu ñu ci yeggee ba ngeen fal projet bi au soir du 24 mars 2024 bii ñu jëm lépp lu ngeen amoon ci yaakaar ci intégration suxaliko ak brassage culturel dinañ ko indi Sénégal ànd ak ay voisin yëpp mu am une diplomatie de proximité ñëpp ànd développé wu ci jàmm nag